yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa hibbana habli bijaahi man huwa almuxtaaru duniya wa xuraa xayra ma axtaaru wajal xijaaban baynana wa bayna kulli adan wa tafi anna alxayna yallaahu yaa nasiiru yaa jadiiru inni xaqiirun mudimun zadiiru fa dugnini bika wa habli al arabu bi man ala jumlata ujmin wa rabu sayyidina muhammadin baabil falaax wasiilati ilayka fi nayli salaax wa salliyan wa salliman alayhi وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولياب خير منن وأملي يا من علا عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم yaa adlu yaa mudillu yaa muyuminu anta mujid ya huna yaa muminu fa abadan kun mumini yaa zal jalal min kulli suin wa azabin wa dalal yaa man ala an zawjatin wa an waladu xuddi wa xud jamii ahli zal baladu wajal ilahi maskani tuba abadu misla simiha bi jaahi xayri man abadu wasalaatu wasalaamu ala hadi al amin sayyidina mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin amma baadu fa hada al yawm yawm al aid li kulli muminin muslimin muhsinin said faskuru llaha tabaraka wa taala fihi ala kawni sura li nabi wa man yaxtafi sallallahu wasallam wa baraka alayhi la fi alihi wa sahbihi kulli man tala wa usikum fihi wa baadahu bi mulazamati ma xtira lakum min al axlaaqi wal aqaid wal aqwaali wal afaali wa ci llahi tabaraka wa taala al qaid wa xadirukum fihi wa baadahu an fiili ma lam yaxtar lakum min al ibadaati wal aadaat fa innama xtaarahu llahu tabaraka wa taala lakum huwa aljaamiu li saadaat fa tuuba liman laa yaltafitu ila xayri rabbi mulaziman maxtira lahu min munir lubbi wa waylun liman qaadahu iblisu ila ma shaa fa innahu yulaazimu ma axza wa asaa qaala allahu tabaraka wa taala wa ma ataakum rasulu fa xudu wa qaala allahu tabaraka wa taala fa man yamal mithqaala daratin xayran yara fa tuuba liman axada ma ata bi rasul alayhi bi alihi wa sahbi salaama muti suul wa lilladi himmatuhu yartaqi ila alxayri la ila alqadari wa dayri waylun liman lam yaxud imma ata bi almuntaqa alayhi bi alihi wa sahbi salaama man jaada bintiqa wa usikum ayyuha alixwaan loo ci man kafaani dawi alxasadi wal udwaan bi an laa tufaariqu maxtir lakum abada fa inna mufaaraqatahu tajru ilaykum alaman wa kabada wa anhaakum an fi'li kulli maa lam yatabayyan lakum kawnuhu as-sawaab fa innahu maa yubjihu ilaa ghayrikum al-ajra wa as-sawaab wala tatlubu al-karama bi ghayri taqwa fa inna al-karama huwa at-taqwa wala tatlubu al-'izza min ghayri al-'azizi al-mu'izz bi jaahi 'abdihi nabiyyihi wa rasuulihi al-'azz fa inna man adbara 'an Illaahi tabaaraka wa ta'aalaa idhaa siwaa tarakahu ma'a nafsihi wa hawaa wa man aqbala ilallaahi tabaaraka wa ta'aalaa ma'a al-wasiila qaada ilayhi kulla maa kaana yartaqi ilayhi min al-jamiila yaa ayyuha nnaasu ubudu rabbakum ittaqillaha xaytu kunt man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam anna kulla man taaba min ummatihi qabla mawtihi fa innahu yashfau fiihi inda mawti mayti wa an man lam yatub minhum tawbatan nasuha faqad amarahu man waazahu nasiha rabbana laa tuzigh quluubanaa ba'da idh hadaytanaa wa hab lanaa min ladunka rahma innaka antal wahhaab ighfir lanaa wa li ixwaanina allaziina sabaquunaa bil iimaan wa laa taj'al fii quluubinaa ghillan lil laziina aamanuu rabbanaa innaka ra'uufun rahiim allahu akbar allahu akbar allahu akbar alhamdulilah lihi jaala yowmal iidi yowma tawsiati wa tafrix wal itlaaq wasalaatu wasalaamu ala man axrajana min zulmati aljahli wa shirki wa nifaaq wal imlaaq sayidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi dawi lwifaaq wa ala man tabiahum bi ixsaanin fi jumlati alafaaq ama baadu fa hada alyowmu yowmun mubaarak wa lana fihi sheyun fii lam nusaarak fa ahmadullah tabaraka wa taala ala ma jaada bihi fii lilmuntaqa bi jamii muqtafi fadli man jaada bi fatqi ratqi fa man shakara allahu tabaraka wa taala fii fa innahu yasbaru bi kulli man maa min alxayr yastafi fatlubu fihi min allahi tabaraka wa taala xayra fa innahu tabaraka wa taala yasrifu ila gayrikum dayra wa tubu fihi ilayhi tabaraka wa taala min jumlati al asiyaan fa innahu yaxfiru lakum wa yakufu ila gayrikum dawi tugyaan wa tawajjahu ila rabbikum bil kitaabi wa sunna wal ijmaa fa inna allaha tabaraka wa taala yakfikum man abaw fihi al ijtimaa bi jaayi dil asawaati al murdiya sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi dawi al ardiya alayhi bi alihi dawi al ardiya alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna nahtadi lawla hadana allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi lam taxis waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulki wa lam yakun lahu wa lam yakun lahu waliyun min ad-dull wa kabiru subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin di leen baal àq ci nuyoo bi ak ak ndokkeel gi Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifatul aam li taa'ifatul ak seen toogaay bi mel ni ñoom ci lislaam bi ak fu ñoo nekk rek ñu ngi ndokkal ci bis bi di leen baal àq te leen baal àq te ñaan yàlla ñu teew teew ko déwén ñaan yàlla nangul ñu suñu jaamu yàlla yëpp rawatina fukki fan yi ci tabaski yi moom xam ne moom nañ moo gën a màgg ci bis yëpp ci fukki fan yi ci ci at mi moo ci gën a rëy ci màgg ci kon nag yàlla nañ yàlla nangul jàmm nañ yàlla ñu ci def yëpp gannaaw loolu nag ni ñu ko baaxee defee rek euh, buñ defee xutba bi mbàkkee ci xutba sëñ bu noppi dañuy def ay baat rek lu mu gàtt-gàtt ci wolof yoo xam ne de di dëppook doxalin jamono ci dañ koy takk nag ci ci euh, xew-xew bi bis bi rek li li ko li ko waral xam nañ ko moo di dëggu dëggu lay firi rek bés bi li ko waral si si maam Ibrahima ak ak doomam ja ak sax dëggu rek moo mooy mooy xewal gi dëgguñ dëggu bu leen suñ borom bëggee nattu ba digal leen loo xam ne kenn mës koo digal kenn ñu nangu ko moom moo waral suñ suñ dafa tal leen am xar ba muy ba muy tëddoom ji rek di ko di ko di ko lewetal far yàlla dogal jibril andi denn xar ca ca ca fa aljana moo waral tafsir gi mu ko waral kon loolu diggu ndigal moo koy waral ci loolu mooy dëggu dëggu rek dëggu nit ki day dëggu dëggu nag ku ko def def na si xamee jikkoy gor as gor mooy mooy dëggu ndax kuy war rek boo boo fekk boo génn ca ca ca dafa goree di kuy war te xam nañ ni euh, dëggal da nga koy def sa diggante ak sa sa borom moo di def def leen muy dëggal bàyyi leen may tere loolu mooy ñu war suñu diggante suñu borom wala mooy dëggal suñu diggante suñu suñu borom bu dee suñu diggante suñu bindee fii nag ñu mel na ñoon suñu morom yi moo di luñ sax ñoom ñu ñu def ko kon nañ nañ ko bëggee moo di kóol la daal fas fas kóol rek ñoom bay bañ leen a war ci bépp anam nag. Mm, sa sa sa gore nag gore mooy ak ak am ñàkk ñàkk ñàkk jom rek ba tey ñàkk jom. ñàkk jom ci faral di ki di yaafus hmm, ci ci xam ne ñii koo def doo mën a doo mën si jaam yàlla ndax doom lu dunde kon yàlla ci la musal kon mi si misaal bi ñu joxe rek gannaaw tey moom xam nañ jamono yi ni ni mu nawet te te di ñaan yàlla ndox mi wax ci jàmm na rek <laughs> lay ñaan ko moo tax xoqut bi day gàtt tey day gàtt léegi kon euh, dëgg googu rek ci ci misaal dama ci indi benn firnde jamono ji ñi ñi yàqoo léegi ñàkk dëggu suñ fan la mas ci def mas ci def benn euh, waxtaan yaakaar naa korte xaw ma màgg màggal màggal ni woon léegi ñi nga xam ne féet féet ñun ñu nekk ci ñun daal euh, li gën mooy nañ bàyyeeg waaw fële nañ bàyyeeg si lañ yor moo di nit àdduna yi ku ci bëgg ku ci bëgg lañ yor demal demal ànd ñoom te ñun ñu bàyyi la bàyyi ñooñu su lañ dañ nekk fii waaw loolu na tax man andi ko bokk na ci waxe si mun taxaa dim digle tere politique yi dëkk bi loolu bokk na ci tax ma andi fefinde misaal bi sëñ Fallou ko waxoon ci xot bu kooku nga ko déglu mi ngi ci mi ngi ci kaset yi ci mujj gu sax ba mel ne si war xabaan wax na ci na ci ba jëbbaluwaat dafa mel ci benn ci ray da ngay dëgg ci lay dëkk bi xeet woo xam ne ay ñoo xam ne kenn xamu fu ñu nekk fu ñu féete maanaam dañoo bëgg daal féete fële féete fii dañoo bëgg di mbubboo mbubboo waa waa fii mu yoon bi ma nepp di di ñu ñu leen dundal loolu nag sel nañ ko xam nañ ko jaar xam nañ xew wala ñu lay waaw yooyu nañ ko maytu suñu fa la ma ko waxoon kon loolu si bi di si mu taxaw li mu wax ni fal noonu daal ku bëgg la lañ lañ la defee ñel lañ yor koo bëgg dañuy bàyyi suñu ñun li yor fii nga bàyyi ñu ko noonu ba may gor gor day féete fenn fu leer waaye yow ko fenn nekk fii di ñu ñu lay di wéyee seen seen baat ba noppi di ñu lay di la yor jor la ci saa yor yu ay tapale baaxul. Hmm. loolu dañu jot a misaal rek suñ ko defee jàmm jàmm ji ñu bëgg am. ndax xam ne jàmm xam ne yëkkati woon jàmm fu ñu mën toll ay jamono ji moo ci raw fi ñu toll nii. rawatina at mi nga xam ni eh, xëccoo réew mi xëccoo réew mi fi ne nii sant tàggal la. ndax mos a ñu def benn xutba sax 2019 euh, yaakaar naa fi fi la fi la ko defoon ak tabaski boobu mooy oto oto yi ji mi mujjoon mujj oto yële waaw yaakaar boobu de boobu euh, bokkut ak bi waaw bu ñu seetloo booba kii yi dañoo bëri woon ñi koy xëccoo waaye dafa mel nag bi ñëw moom mooy gën a bëri a a fi loolu doy na waar yàgg naa ko wax nee naa leen njiit moom dafa dafa dafa métti dafa tiis ci ki ñu jiite. ki ñu jiite moom lu waa ji mel faaw faaw mu feeñ ñoom fekkee ku jub la waa gaa gaa yi dañ jub ndax ndax ni ma ko seetloo rek ñëpp wax bi nag ñëpp laa koy masale masale moo di nit diine yi ak nit àdduna bi moo di xam ne njiit gaynde moo ci gën xam nañ ko. njiitu gaynde di ko gaynde xam nañ moo gën ci njiit xam nga di ko gaynde moom ñëpp na moom nañ taamu ci njiit. dafa mel na gaynde dafa dafa néew ci léegi ci jamono ji waaw jikko jikko gaynde ko ci jamono ji dafa njiit mel noonu dafa dafa néew wala su fekkee am na sax léegi day am ñeneen ñeneen ñeneen ñoo xam ne dañuy jikkoo yeneen jikko mooy ci xeet wi di ko di ko yàqal daal di ko waaw du moon def li mu bëgg a def loolu xam na jar xam naa yëpp xam naa ko moo tax man jàmm jàmm ji ñu bëgg Euh, su su suñ ko bëggee am bokk na ci ñi xam ne suñ ko defee moo di yàgg na ko wax sax moo di yar xale yi moom fo fo lañ ko wax na ko boo ci xët ba wax na fi jaare ja duma ci dëlliwaat dëwaat ko dugg ci YouTube da nga ko déglu ni yar gi yeesal yar gi bu dee wax nañ ko lislaam bi bu dee ci ñi jàng tubaab ñu yeesal seen yar ci eh, fekkate ne ñoom duñ sukkandiku ci lislaam ñu jàppandi ci ci tarbiya askar li ñuy wax tarbiya askariya mooy de service militaire na naka dama koy bantu rek service militaire waaw ji jar na jar na ñu ñu ñu def ko def ko ndax tax baax na baax na ci ci benn benn wàll baax ab yar la suñ ko seetloo am na benn école militaire bu ñu tàggatee xale yi ci ndar waaw bango Dakar bango léegi Dakar bango foofu toogalaw école ba kii baax tax ji euh, Afrique sax ci biir yëpp dañ ci ñëw di indi seen i xale ñooñu ñu leen di tàggal seen i yar yar yar ba dul islam waaye rek baax na ndax da ndax nit ki am am ngor am jom waaye yooyu nag ñu jàppandi ci fe fekk lisaa yar lislaam bi di di di saaro ci réew mi wala ba tey suñu mbokk yi ci des cré euh, ñi nga xam si si si na ay saa lañ gëm ñoom seen yar na ñoom it ñaax leen ci ci waaw ah seen ci ndax gis nañ suñu borom mbokk jullit yu bëri di feebul seen doom jërë yar yare bañ yare eh, yëpp baax na yar moom fu mu yar yar yar fu mu yar rek yar moom benn la nit ko fu am na xeet boo xam ne du nga tudd ca ci xeet xeet boo xam ne siiw ci loolu seen seen teggin ak seen duñu di julli sax xëy na sax ay julli duñu ñëpp ñoom duñu ay julli waaye seen teggin seen kii rek jëfalante rek dafa dafa ñëpp ñëpp ñëpp rafetlu lañ ko waaw li tax ma andi eh, misaal boobu ci ci ba tey ci eh, eh, jikkoy gaynde nee na naa a tàmm ci ci njiit. waaye dañuy gis nag ji njiit bu naa la dañ koy am fi yi muy muy wàllu diine diine ji wala adduna bi fi bu nekk dañ koy am fi ne dañ koy am dañ koy am ci ci jamono ji. mu di Sénégal mu ci dëkk yi des ci ak kii bu fekkee xam ngeen seen xam ngeen. ndax yàlla yàlla daf bind doomu aadama yàlla yàlla da ko moñaale da yàlla da ko teral yàlla teral ku nekk ci ku nekk rek fi ne am nga am nga benn benn euh, xayawaan benn xayawaan xayawaan ci ñu ko coolof sax mooy mooy waaw waaw benn bàyyi ma benn bàyyi ma boo boo ndikal jikko waaw ah, ah, déedéet déedéet waxuloo c'est ku nekk am na am na am ci bàyyi ci ci ci ci nekk ñëpp ñëpp ñëpp ba kenn desul ku nekk am ku ku yàlla dendal ak ak yow xam ne ak bàyyam yi jikko ci mu ji bàyyam yi kii fas yeeg nag yi xar yi ak bëy ak ak ak ak ba ak ba ci dox ta suuni sax lëg yeeg muus ak janax yëpp am yoo am na golok yëpp yëpp am loolu yàlla yàlla yàlla ko def lu yàlla dogal la léegi ma gis na ni man euh, gannaaw léegi yar yar yar bi dafa dafa jafe léegi ñu ba da ngay daw bu yàggul am na ci misaal maanaam daal tali bi sëriñ si yàlla xam ne na da nekk nañu ci tukkaale yi bay yare waaw <laughs> ni ko ni ko dëgg dëgg dëgg la naka noonu tamit talibé yi ñoo jox na suñu doom yi. talibé yi ki bëgg jox suñu doom mooy moo di fu ñu jox xaalis di génn. waaye waaye jox seen doom ñu yar yaral leen ko yar yar yar yar ba jaadu da nga dañ koy tayal wala boog su nga joxee di nga jox ab diir bu gàtt rek jël ko fa wutal ko passeport mu duggi ci meew nekk moodu moodu wala waaw xam na seet na seet na ko waaw nga xam ne jamono jamono jagi ko daf mel daal léegi yëpp léegi dañ ko kii daal dañ ko dañ ko nu ñu wax moderniser moderniser modernisation bon fi ni ci la ñàkk xam ne ku xam ku jàng léegi mën na ko jox foo nekk jàng ma nga nekk ci jàng ma nekk fii nga nekk fële. waaw waaw dégg nga gisante dëgg la noonu la loolu ba naam noonu la ko doon liggéey liggéey ba da ngeen liggéey am naam liggéey jamono ji ma ma ngay liggéeyal kenn koo xam doo gis da ngeen ci kii ngeen liggéeyante rek ci ci ci xar xar lay bees ngeen liggéey loolu bari bari na ci dëgg bi léegi kooka la waaye nag ma gis nag yar yar moom kenn mënu ko def noonu kenn mënut a yar ci ci kéew moom jënjëw leen <laughs> waaw waaw dëgg la yar da ngeen da ngeen bokk fi nekk ngeen jënjoo muy gis ngi ngay def di nga tere muy bàyyi noonu noonu yare waaw ma gis naa ni gannaaw loolu xaw naa jafe jamono ji léegi man man li ma waxoon léegi man ma gis ni léegi daal li li mën see jàpp mën jàppandi moo di fexe fexe ku ñu xam ban ban ban ban ban ban ban xayawaat la kii ban ban xeet rab la dëppool moom waaw ni kii su ngeen yaa sa morom yow soo soo xamee sa xayawaan bi nga dëppool moom mu xam ba soom rek da ngeen a da ngeen a da ngeen mën a jubóo da ngeen mën a jubóo ndax da ngeen may moyantu naa joxe mel ni muus ak ah, muus ak janax bu duñ duñ jara taal léegi dégg nga lislaam lañu jàngale muus man na mën a yërëm jarax te sukkandu ci lislaam ne kii kat xajuma ci moom kon kon naa ko jégal waaye naka noonu janax na moom bu mu yomb muus nag janax buñ koy yafal yafal bam ba waaw de waaw waaw loolu su ko defee bu naa ci bis naa ci am bis <laughs> waaw waaw dafa dégg benn nisan euh, xisa bu euh, benn naar gànnaar ki si Moussa Laga di ko sax monsieur Xaadir ci mu koy na nettali nee na euh, dafa benn gànnaar gànnaar bu bind xasida def ci daal ni ko daal ni ko neex li gën a neex ci kër Sëñ Tuubaa moo di mosoo janax dañuy dañuy juboo ne ganaar nee ganaar moo ko bind ay abi at nee na ne siñ ne moom moo ko neex man moom loolu man dama ci ci yëm ma ba léegi man waaye da xam ne Sëñ Tuubaa moo xam ne moom dafa may waaw kër Sëñ Tuubaa gi ak jamonoom rek ak ah, uma uma këram waaye jamonoom bokk ak jamono ji des ah waaw yi moo li xaw la foofu du mën mënta xaw fépp kon nag ni ku xam ban xeetu eh, kii la eh, ñu koy xayawaan waaw benn waaw benn benn xeet benn benn koy benn benn xeet Ibrahima la sa morom xam ko rek day mën jiwoo kenn ko daa xam sa fayam sa morom naka noonu kilifa la kilifa kilifa gu mag yi muy xam kilifa diina wala diina kilifa eh, àdduna bu ñu xamee moom mooy mooy a mucc moom mañ ko maytu mooy <laughs> mooy mu xam bopp moom it waaw mën a maytu fii lii bind bi nag téere dafa am téere boo bind ci mm, xisa xisab ay ay kilifa yi mu seqoon ay mbir dégg nga léegi nag ku seen tur ci fo la ko jaare ci tur ayawaan laa ko laa ko eh, tur mu tur léegi nag bi ma jàngatee ba jàngat mi jeex nag comme bu ñu jeex ci mujjantal ga ci laa gisee ne lii kat ma ma sañee defaroo ah. ma sañee defaroo mooy ne wax nii ah, ma sañee defaroo moo di ku nekk soo xamee ayawaan mm-hmm. nga xool jikko jëm bon le nga nga ko lépp day baax tokkal kon su boobaa ñëpp ñëpp dañ mën a dund ci jàmm ak salaam lii lii lii lii kii bu ko jàpp doo ko rëccu de ñëpp ñëpp mën nañ ko mën nañ ko lijjanti lii bii ñu wax ni muy julli bi muy ñëpp rek ci àdduna waaw ci misaal boobu ma joxe misaal um, ah, jikko bon soo ko nga ma amaytu ko moo di suñ suñ xoolee suñ xoolee kii ñu tudd ordinateur li ñuy jëfandikoo nu mu tudd janax yëpp tudd ah janax janax tudd ci wolof Suuri ah ma yow ah ma ma wax ci anglais ah soo xam nga wax eh nga ne wax xam nga suuri foo lay dugg te suuri xam nga li muy def baax na lu baax lay def boo ko boo suuri bi ñu xam ni suuri <laughs> bi ñu xam day yàq léegi nag teel a war na yàlla teel a xalaat li teel a bi digal tey tey tey say tey bi ñëw ni la xalaat ni boo tuwaay bi la fu ñu jógee tul suuri bi te suuri day yàq moom janax ma janax yàqat la léegi nag ñoom ñoo xam ne yàqat la yàq yooyu ñoom ñu watee ko defar fi ne eh, ordinateur su eh, jaraax mooy defar mooy defar ci biir ci ngay dugg di bind ak lépp lépp looy defal su suur yi moo koy defar moo lañu tudd ci fu noonu suur loolu laa jël misaal noonu waaw loolu loolu la lii ab ab kii la daal su nga yóbbu na ci ci ji nii ñu dañu tàngal ji ku ne sama ko tal ci ja am jàmm fi ne ku def ku yóbbal yi daal ku ñu yóbbaloo kenn ku rëcc waaw waaw tookaal bak bakala kon ñam foore ba kii jublu ci sunna si tookaal barakala wa maskani sallim min alfujjaari wamnun ala al ahli bima in jaari waj'al rabbi minan al muajjala jalibatan li minan al muajjala yaa xayu yaa qayuum kun li mujib anta al mujibu wal karimu war raqib ilayka waxdaka faratu min siwaak fa kun bi daaka qaayidi ila hudaak waliyakun rabban waliyan wa nasiru wali jamii almuslimiina yaa basiir wa kathir alxayraati haadha albaladi ورزقها ودت به عن نكدي